arrahmaan arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala almabuusi rahmatan lil alamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baadu nu dellusiwaat ci sunu jataayu alxuraan bi ñu bi nu baaxoo di amal àllarba ju nekk ci waxtu wi mu jëm ci téerab sunu borom bi subhaanahu wa taala noo ngi ci suuratu an-nuur nu war a tàmbalee tey jii ci laa taxsabanna alladina kafaru mucjizina fi l ardi wa mawaahum annaaru acuudu billahi min alshaytaan alrajim laa taxsabanna alladina kafaru mucjizina fi l ard wa ma'waahum naaru wala bi'sal masiir yaa ayyuhal ladiina aamanuu liyasta'dinkumul ladiina malakat aymaanukum wal ladiina lam yablughul huluma minkum thalaatha marraat min qabli salaati alfajri wa xiina tadacuuna thiyaabakum min aldahirati wa min bacdi salaati alcishaa talaata cawraatin lakum laysa calaykum wala calayhim junaaxun bacdahum tawaafuuna calaykum bacdukum calaa bacd kadalika yubayinu allahu lakum alayaati wallahu alimun xakim wa ida balaga alatfaalu minkum alxuluma falyastadinuu kama stadana alladina min qablihim kadalika yubayinu allahu lakum ayaati wallahu alimun xakim bismillahi irrahmani irrahim sunu boroom subhaanahu wa taala mi ngi wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko bul jort bul jort mukk ne ñi nga xam ne dañ maa weddi dañ maa mën a të wala dañ maa mën a raw amul kenn koo xam ne weddi nga sunu boroom subhaanahu wa taala mën a raw yàlla wala nga mën koo të laa taxsabanna mooy bul jort alladina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla bu leen jort mukk ne mujizina fil ard dañoo lottal yàlla ci suuf déedéet sunu boroom daa yàkkamtiwul sunu boroom daa mën a muñ sunu boroom ñi ko weddi dañ koo mënta yàqal dara mënuñu koo wàññi dara moo tax bu ñu demee ci suuratu ali imran dañuy gis sunu boroom subhaanahu wa taala di wax naan inna alladina ishtaraw alkufra bil iman lan yadurru llaha shay'a ñi nga xam ne dañoo weccee kéefër mooy ak weddi ñu weccee ko ngëm waroon a gëm yàlla mel ne dañoo weccee ngëm nga ako kéefër borom bi nee na ñooña day mënuñoo lor yàlla ci dara mënuñoo lor yàlla ci dara loolu bokk na ci li tax sunu borom subhaanahu wa taala mat bind nit mu nekk ci sag moomeel nga di ko dundal yor ko ba noppi muy xëy ci lu la naqari di gont ci lu la naqari ba noppi nga def tekk rek ànd ak muñ ànd ak li ñuy wax ak dal kon bul jortu mukk ne ñi weddi yàlla dañoo lottal yàlla ci suuf sii déedéet bu sooboon sunu borom subhanahu wa taala bu leen jàppe woon ñoom li ñuy def kon léegi ñu ñàkk seeni bakkan waaye su boobaa kon anamatu yàlla ga ci ak mën a muñam anamatu yàlla ga ci ubbil jaam bi ay buntu ngir mu mën a deltu ginnaaw mën a tuub borom bi subhanahu wa taala bu ñu demee ci suuratu faatir ca mujj ga day wax ne yàlla day dara lottulu ko ci asamaan dara lottulu ko ci suuf xam nga fii daa tudd suuf rek waaye boo demee ci suuratu faatir ca mujj ga da ne wa ma kaana allahu li yujizahu min shay fi samawati wala fi l ard yàlla dara tawu ko dara lottalu ko moo xam loola daa nekk asamaan moo xam loola daa nekk suuf gis nga alxuraanul karim laay yi dañuy firente laaye léeg-léeg nga gis ko ci barab sàngam nga demaat ci jeneen laaya gis mu mottali la nga xam ne moo nekkutoon ca laaya ja nga gisoon ci barab sàngam kon laa taxsabanna alladina kafaru mujizina fi l ard ñi weddi yàlla nag moo xam ay jullit lañ damaa bëgg a wax moo xam ay nit lañu moo xam ñi weddi yàlla ay jinne lañ moo xam ni wedd yàlla ay nit lañ wala ñu wedd yàlla ay jinne lañ ndax nun ak jinne yi kat nun la yàlla suñu borom subhanahu wa taala bokk sant nun la yàlla suñu borom bokk sant moo tax yaa ma'sharal jinni wal insi la yàlla wax yéen mbooleem jinne yi yéen mbooleem nit ñi ndax yonent da leen ñëwalutoon alam ya'tikum rusulun minkum jinne yi ñoom itam tawuñu yàlla ñoom waxal nañ ko seen bopp boo demee ci suuratul jinni nee nañ ñoom jinne yi wala nujizahu haraba yàlla mënuñu koo të doonte dañuy samp suñuy xel lu ñu daw daw daw daw mënuñoo të suñu borom subhanahu wa taala boo demee ci suuratul ahqaaf suñu borom yàlla wax na ci seen làmmiñ ñoom ñi woo dégg nga ña xeetoo ak ñoom naan leen yaa qawmanaa ajibu daaiya allah wa aminu bihi yaxfir lakum min dunubikum wa yujrikum min adabin alim wa man laa yujibu daaiya allah fa laysa bi mujizin fi l ard gis nga baat bi moo ñëwaat foofu koo xam ne wuy jiwut kii di wooteel yàlla tamit muhammad sallallahu alayhi wa sallam mënta te yàlla ci kaw suuf mënul te yàlla ci kaw suuf kon mooy yàlla yu bari yi mooy yàlla yu yaatu yi ay nit ñu dëng nekk ci kaw suuf bari lool ba noppi ah mu mel ne daal suñu borom daa noppi ci seeni mbir déedéet daa teey ci seeni mbir ndax daa am bis boo xam ne kenn ci ñooñu mënu koo racc kenn mënta racc ci fekke bis boobee boo demee ci sóoratul Kahf bi nee na yàlla day boroomu njéggal tey boroom yërmaande tax na bu jàppe woon maanaam borom yërmaande la boroomu njëggal la wa rabbukal gafuuru dur rahma su doon jàppee nit ñi li ñuy fàggu law yu aaxiduhum bi ma kasabu kon moom mbugal mi léegi mu daal di ñëw la ajjala lahumul adaab waaye da caa teg na dañoo am mawid nit ñi dañoo am mawid ak yàlla dañoo am ab rendez-vous bu ñu am ak yàlla ab daje bu ñu am ak yàlla boo xam ne kenn ci ñoom kuy ruusaanu du am moo tax mu ne bal lahum maw'id lan yajidu min dunihi maw'ila suñu boroom nee na ñi wedd yàlla bu ñu la wor jekku gi ñu jekku àddina tuxu gi ñuy tuxu jóge ci barab demaat ci beneen barab mu yomb leen lool maanaam ay moyen dañ ko am lool laa yaxurrannaka taqallubu alladina kafaru fi l bilaad loolu daa yàggut mataaun qalil diggante su gàtt gàtt la waaye fa ñuy mujj mooy summa ma'waahum jahannam moom la waxaat fii ci laay ji suñu borom yàlla kon nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen a wedd yàlla bu leen jàpp ne da ngeen a tës suñu borom subhaanahu wa taala waaye mu wax ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko bul jortu mukk ne ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla dañoo të yàlla sëñ seex laa tax sabanna alladina kafaru mujizina fil ard warsh loolay jàng laa taxsabanna laa taxsibanna alladina kafaru mujizina fi l ard dégg nga xasiba ak yaxsabu moom baatub xasiba maanaam faila fii daa am ñaari anam bu la neexee mën nga xasiba yaxsabu mën nga ne xasiba yaxsibu loolu ñiy jàng sarfu xam nañ ko laa taxsabanna alladina kafaru mujizina fi l ardi wa mawaahumu naar borom bi nee na seen tàppukaay ëllëg mooy sawara wala bisa al masir borom bi nee na sawara kum doon sa tàppukaay ëllëg sa mujj day mujj gu bon a bon la wala bisa al masir sunu borom nee na innaha saat mustaqarran wa muqaama nee na sawara day kum doon sa saxukaay ëllëg am nga saxukaay bu bon a bon a bon loolu li muy tekki mooy kon yàlla dafa yàkkamtiwul la ñii di ko weddi nekk ci kaw suuf di jalgate ay ndigalam fa muy fa ñuy mujj ëllëg sunu borom leeral na ko mooy annaar borom bi itam wax na bonaayu barab boobu nee na wala bi'sal masir mu tekki ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla yéen ñi gëm yàlla kenn ci saxaaba yi daana wax ne saa boo déggee alxuraan nan yaa ayyuha alladina amanu na nga ko diglu benn lu baax la lum lay wax ne def ko wala lu bon la lum lay moytuloo wax na dëgg sunu borom subhaanahu wa taala saa boo xamee ne nee na yéen ñi gëm yàlla te yow nga gëm yàlla jox ko sa nopp am na lu baax lu mu lay digal nga war koo def gën a baax wala am na lu bon lu mu lay tere nga war koo bàyyi sa mbaax di gën a mat ndax kat ak mbaax noonu dong la bi maanaa da ngay dollee ko lu baax ba noppi di gën a bàyyi bon bàyyi yi nga xam ne yàlla da koy tere. ba noppi di def yàlla digle loolu dong moo di ak mbaax mbaax moom lu mu gudd gudd gudd gudd gudd ay tànk jàppal ne lii dong la li yàlla digle nga di ko def sa kem kàttan li muy tere nga di ko bàyyi loolu dong moo di mbaax ñi baax ñépp lii moo taxoon ñu baax kon borom bi ne ne yéen ñi gëm yàlla li muy digle ñoom la koy sant ndax ci waxin parti ku ca adhéré wu bu ñuy woo bu ñuy woote dañuy woo ci turu waa parti bi su ko defee bu ñu wooyee waa parti bi te yaa ngi woon yaa ngi adhéré woon ci parti bi da nga mën a bàyyi sa xel ci kii woote dégg nga duñu ko dégg léeg-léeg ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay parti politique nii jékki-jékki bu fekkee dañoo am lu ñu war a yëgle yéen waa nangam la ñuy wax. yéen waa nangam su ko defee yéen waa nangam fu ngeen mën a nekk rek dégg nga damay bañ jaar ci wenn tur moo tax dégg nga am ñu ko partisan la ñuy wax ñoom mooy ñi bokk ci parti bi mi ngoog su ko defee partisan yépp dañuy daal di bàyyi xel ci ne ñoom la ñuy waxal kon ñi nga xam ne xas nañ nangu ne ñoom ay jullit lañ itam gëm nañ seen borom yàlla suñu borom bu leen di woo ci foofu lay jaar yaa ayyuha alladina amanu te woo leen daa ne da koo neex moom yàlla maanaam ñi gëm yàlla ñi ko gëm woo leen da koo neex noonu laa ko mën a waxee maanaam lu mu rafetlu la moo tax mu bari ci alxuraan ñi weddi nag ñoom benn yoon lañ lañ leen woo ci alxuraan jëpp yaa ayyuhal ladina kafaru moom benn yoon dong la ñëw ku xam ñaareel ba nga wax ma ko suuratu tahrim la ko yàlla wax te ba mu leen koy waxee tax mooy booba maanaa deltu ginnaaw moom jeex na laa ta'tazirul yawma lañ leen wax dégg nga. boo sawaree bu doon doomu aadama bu sawaree ci dara da koy woo lu bëree bëri maanaam koo xam na nga koo bëgg li nga koy woo di jaar ci turam rawatina ci ay melokaanam dafay bëri lool suñ borom nee na yéen gone yi ngeen bàyyi xel lii may wax nii yéen gone yi laay waxal suñ borom yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla li yastadinkum na nay sàkku ci yéen ndigal na nay istidaan nay yëglu nay yëglu ñan ñooy yëglu xanaa alladina malakat aymaanukum ñi nga xam ne yéena leen yilif bi maanaa yéena leen jënd ñu doon seeni jaam moo xam ay góor lañ moo xam ay jigéen lañ ñu ngeen indi leen ci seeni kër ñuy dox ci seeni lan ah ñuy dox ci seeni ndigal wala ci seeni service la ñuy dox yéen daal yéen a leen jënd indi leen ci kër gi moo xam ay góor lañ moo xam ay jigéen lañ li leen bàyyi ci kër gi du lenn lu may di déglu seeni seeni ndigal loolu mooy ñi nga xam ne malakat ay maanukum bi maanaa yéen a leen moom loola mooy ba jaam di am nga xam ne da ngay dem jëndi ab jaam indi ko ci kër gi bu dee jaam amatul itam kon ñi nga xam ne xëy na li leen bàyyi ci kër gi mooy daa da nga leen di liggéeyloo da nga leen di jël ñu doon ay mbindaan dégg nga ma ñu nekk ci kër gi nga xam ne yow yaa leen bàyyi ci kër gi yow borom kër gi wala soxna borom kër gi suñ xëyee ci ay liggéey yu aju ci kër gi ca la ñuy nekk ñooña itam bu ngeen leen yilifut moom leen moom moomuk maanaa jënd waaye moom ngeen moom ngeen leen moomuk moom seeni manaafi mooy seeni njariñ maanaam yéen la ñuy liggéeyal kon yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm yàlla borom bi nee na ñii may wax nañ leen di yëglu su ngeen nekkatee ci ay néeg buñ jekki-jekki rek daal di tàbbi ci biir néeg yi nañuy yëglu door a dugg borom bi nee na liyastaadinkum alladina malakat aymaanukum walladina ak ñi nga xam ne lam yablugul xulum mooy gone yi may wax nga xam ne ñoom doonaguñ ñu majeur majeur guñ bi maanaam doonaguñ ay muskallaf àgguñ ci gént maanaam gént guñ gént màndargam ne génn nga ci ndaw la màndargam yi wane ne tàbbi nga ci ak mag tëdd ba yàgg nga tëdd di nelaw ba yàgg nga gént am lu génn ci sa dégg nga tuurukaayu ndox muy am ndox moo xam ne wax dëgg daf lay wan ne la léegi nag doonatoo gone loola ci boppam ku ca xas àgg am na taxawaay boo xam ne moom nga war a taxawee ci lislaam waaye ñi nga xam ne borom bi ne ne àggaguñ ci itam nga xam ne ay gone lañ ñeenti at juróomi at juróom-benni at juróom-ñaari at ci lañ toll waaye ñu ngi ci biir kër yi. borom bi subhaanahu wa taala nee na ñi gëm yàlla ñooñu nañuy yëglu loolu nag su fekkee noonu la tëddee kon yow yaay waxtaan ak njaboot gi yow borom kër gi bu dee da ngaa doon ku bëgg a tënku ci alxuraanul karim ni yàllay jàngale da ngay woo sa njaboot ba ñëw ña ca am juróomi at ak ña ca am juróom-benni at ak ñëpp nga ne leen ah maa ngi leen di sant loo xam ne kat suñu borom yàlla moo leen ko sant sunu borom subhaanahu wa taala moo leen ko sant mooy bu kenn ci yéen di duggati sama néeg man mii di baayam wala muy dugg néeg ndeyam lu may nga xam ne taxaw na ci buntu ba yëglu dégg ngeen ko ñu ne waaw nga ne lii kat du lu ma wax dama leen koo jotli ndigalul suñu borom la subhaanahu wa taala bu leen xeeb jataay bi ngay am ak ñoom bul ko xeeb dana dem ba yàgg ñu doon ay mag di fàttali ko jataay boobu xam ci xamaale ca ne nekk suñu bàyyi daana tënku ci alxuraanul karim gis nga am ak ndaw wala am ak gone ab jataay ñu bari dañ koo xeeb ñu bëree bari duñ ko def ñu bari ñu ngi ci biir kër yi waaye daanaka ëppale nañ seen bopp di toog ay gone rootni di wax ak ñoom yaa bunay laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim yaa bunay aqimi salaa wa amur bil maaruf wa naha anil munkar mu ne gone lay waxal de gone lay waxal xanaa xamu ne li nga wax gone gi nii jàpp ne jàpp ko wallahi mën naa dem ba jëmmi jamono loola moo koy orienté ci jamonoom loola nga ko doon wax démb moo koy wan fan lay teg tànkam yontu yàlla yuusuf daa gént ak gént booba gone la mu ñëw nettali ko baayam baayam ne ko sa gént gi bul ko nettali sa bokk yi laa taqsus ruyaaka ala ixwatika lu ko mooy danañ la fexeel ndax baay bi xam na gént gi lan lay tekki gént gi li muy tekki mooy moom dana leen masa gétti may supérieur dana leen ko masa def ca kanam boo leen ko nettalee fa yakiidu laka kaydaa lu mu ci teg ah ndaxte inna shaytaana lil insaani aduwwun mubiin mu ne gone lay waxal de waaye lim koy wax mi ngi koy firndeelal mi ngi cës laayal li muy wax ndax xam na ne lii mu koy wax dana ko dugg ndax loolu dugg na ko wala dugg ko léegi Yuusuf dem na ba doon muskallaf sa borom yàlla dogal na lay xew xew na ndax dama koy tënk lay xew xew na bokkam yi ñëw nañ wa xarru lahu sujjada rot wàcc nuyoo ko nuyoo ba nga xam ne moom lañ daan nuyoo jamono joojee mooy sujjóot wàcc mu daan ne yaa abati haada tawilu ruyaaya min qablu qad jaalaha rabbi xaqaa saa gént gaa ngi nii bàyyi saa bokk yii rot di ma sujjóotal mooy laa waxoon bàyyi doon gone di la ko nettali yaa abati inni raaytu ahada ashara kawkaba walchamsa walqamara raaytuhum li saajidin yaa abati hada tawilu ruyaaya min qablu qad jaalaha rabbi xaqa yàlla de def na ko muy muy dëgg wa qad axsana bii waxul wa qad axsana ilayya de wa qad axsana bii duma taxaw foofu id axrajani min assijni wa jaa bikum min albadwi min baadi an nadaga sheytaanu bayni wa bayni ixwati allahu akbar maanaa ginnaaw bi nga xamee ne seytaane yàqoon na sama diggante saa bokk yi seytaane gis nga da ko bàyyi waxoon ne ko inna sheytaana lil insaani aduw mubin bul xeeb di toog di waxtaan ak sa doom di ko wax yenn yi day dem ba yàgg mu amal ko njariñ lool loolu lan moom fi yóbbu mooy ndigal lii suñu borom yàlla di joxe bàyyi moo ci mën a wax ak ay doomam yu ndaw kër yu bari boo fa duggoon nga wax ak gone yi ne leen waa ndax seen bàyyi mas na leen wax ne am na ñetti ñetti waxtu yoo xam ne kenn du dugg te yëgluwoo dana dañ naan la ah bàyyi de wax dëgg yàlla mosunoo wax loolu yow mi may dégg ak foo mën a nekk ci àddina maa ngi lay laaj ba xam lii yàlla lay wax fii ndax mas nga wax say gone mas nga leen ko wax waaw dana am njariñ insha allahu taala mën naa am koo xam da koo bàyyigutoon da koo xamutoon waaye mën naa am ndax nun dañuy jot li dong jot li dong la ñuy def li yàlla sa borom santaane loolu dong la ñuy jot li mën naa am da nga cee jotutoon yow mi may dégg waaye kon bis nekk tey jot nga ci am nga njaboot woo leen ba ñëw nga ne ah am na laay joo xam ne man yëguma ko woon xaw ma woon ne yàlla wax na ko waaye bis nekk tey nag moor demba sàmba bu kenn ci yéen duggati néeg baayam bu kenn ci yéen duggati néeg ndeyam te yëglu wut ci ñetti yii nga xam ne yàlla wax na ñetti waxtu yii la wax na ñetti waxtu la wax acu ñetti waxtu mooy lan borom bi nee na ñi nga xam ne lam yablugul xuluma minkum ay gone lañ yoo xam ne majeur guñ ci yéen nañuy yëglu ci salaasa maraat ñetti yoon ñetti yoon ñetti yoon ya mu tàmbalee leeral mooy min qabli salaatil fajri li njëkk jullik fajar maanaam ku ci bëggati duggati néeg sa baay te fekk da ngay gone wala nga bëgg a duggati sa néeg yaay te njëkk ñuy julli fajar la na nga taxaw nga yëglu allahu akbar sunu borom subhaanahu wa taala xoola ni mu nu yarale suñu gone yi mooy gone bu fekkee ne daa jekki ba waxtu woowu rek jullee guñ fajar mu daan ne saraax dugg néeg ndeyam wala mu ne saraax dugg néeg baayam mën naa am mu fekk ndeyam ak baayam solu ñu yére mën naa am mu gis baayam solu du yére loolu bu ko defee ne dana ko fàtte de loolu noonu ci xol bi lay dem gis gim la gis soloo yére gis gim la gis yow baay wala yaay soloo yére mu tabbi ci xolam mu gis la loolu du ko mas a fàtte ci àddina te su ko fàttali ko rek am lu ko naqari te du ko mën wax kenn itam mas na maa ngi saa bàyyi sulut yére du ko nettali waaye nag lu muy jàpp ci xolam lay doon kon li jiitu jullik fajar li jiitu jullik fajar yëglu ku ci bëgg a duggati sa néeg baay mbaa sa néeg yaay te fekk julleeguñ fajar na nga yëglu assalaamu aleykum buñ la waxee man ngaa jàll si nga jàll si dégg nga mën naa am daa am loo fàtte woon ci néeg bi te fekk yaa nga fanaan ca saal ba dégg nga ma nga bëgg koo jël daal di ne saraax dugg rek ndekete fekk nga fa loo xam ne si du loo du du loo doonut loo waroon a gis wa xiina tadacuuna thiyaabakum min azahira weneen waxtu waa ngi nii ak xiina tadacuuna thiyaabakum mooy waxtu woo xam ne da ngeen a wayaflu da ngeen di wayaflu maanaam daal di summeeku ngeen summi ngeen seeni yére ngir taruk tàngoor wi maanaam jamono ji daa tàng jamonoy tàngoor la sa bàyyi ci néeg bi dafay summeeku jamonoy tàngoor la sa ndey ci néeg bi day summeeku la tax ndax tàngoor wi lay moytu loolu moo tax mu summi ay yéreem jamono jooja itam muy digg bëccëg jamonoy digg bëccëg bul dugg sa néeg ndey jamonoy digg bëccëg bul dugg sa néeg baay te fekk maanaa yëgluwoo waaye lii gone mënu koo xam bàyyi koy wax moo koy xamal ne ko waxtu wii bul dugg sama néeg waxtu wii bul dugg sa néeg yaay wa min baadi salaat al isha ak gannaaw julli gee gannaaw boo xamee ne julli nañ gee fatu xam nga fatu daan am yéen nag da ngeen di julli gee ba noppi nekk fi rek waaw ñu bari ci yéen suñ jullee gee maanaa duñ fatu duñ fatu yent yàlla muhammad daana kaana yakrahu alxadisa baadaha buñ jullee gee ma noppi da daan da daan sib nekk fay waxtaan waxtaan woo xam ne ajuwut ci xam-xam waxtaan woo xam ne jëmul ci maanaa lu am maslaxa loolu moo tax ñu bëri duñ yeewu fajar ndax julli gi maanaam guddi gi loo ci jël te moom moo ko rek day fa yeeku waxtu wa nga waroon a jug doo ko mën a jug kon ginnaaw boo xamee ne julli nañ gee la muy tekki mooy léegi moom jamono jooju nit ki day yëg ne moom kat moom na boppam mu nekkee ci néegam lu ci gën a bari du sol ay yére mbaa yére yu xaw a doy waar day kii rek maanaam mu wayefe da mu gën a wayefe ci moom rek moom lay kii léegi ñetti waxtu yi suñu borom yàlla nee na thalathu awraat lakum ñetti awra la awra mooy loo xam ne lu ñu wërta gis la baatu awra ci arab mooy lu ñu wërta gis moo tax sax awra ñu koy tuddee awra awra dëgg-dëgg li tax ñu naan ko awra awra arab la awra arab la olof moo naan awra waaye awra mooy lu ñu war a nëbb moo tax kër bu fekkee ne amul buntu kër kenn tëju ko dañ naan inna buyutana awra naa fekk loolu lañ daan laytoo naan dégg nga suñ kër yi dañ koo tëjut borom mi ne wa maa hiya bi awra dañuy wax rek bëgg a daw dong yuriduna illa firara ñu naan wa maa hiya bi awra borom mi wa maa hiya bi awra inna buyutana awra wa maa hiya bi awra yàlla ak xam ba xam na sa kër sax na nga koo tëju wala tëjoo tëjoo ko ak mata mooy la ilaha illallah sa kër sax ba nga xam ndax tëj nga ko wala tëjoo ko sax sama borom xam na ko man daa umpale wu dara daal ci gàttal maanaam kuy jëflanteeg buur bu umpale wu dara moom sëñ bi moom sëñ bi dëgg-dëgg man daal muskila am na ba pare te dana ko wax ca kanam tuuti sax insha allah buy tëj saar bi borom bi nee na salaatu awraatin lakum mu teg ci nag ne wa laysa alaykum wala alayhim junaax baadahunna bi maanaam ñoom gone yi duñu am benn bakkaar yéen tam du ngeen am benn bakkaar baadahun na gannaaw bu ñetti waxtu yi jàllee mooy kenn ku ne mën naa dugg te doo yëglu gannaaw julli fajar e ku fi tàmbalee ba ñuy julli tusubaar bu la neexee ngay dugg sa néeg yaay sa néeg baay te doo yëglu gannaaw boo xamee ne tàngoor wi dal na wala julli nañ tusbaar ba noppi ba waxtu wa jàll ay waxtu yi ay ay ay ay trois heures jëm kaw ba ay takkusaan ba ay timis diggante ba mën ngaa dugg ndax gone nga goo xam ne ak góoj foo xam ne ak góo ci foo foo mu amagoo mu kal da ko musukalaf la mën ngay dugg te doo yëglu gannaaw julli gee itam dégg nga moom foofu moom mayuñ ko gannaaw julli gee kon daal gannaaw waxtu yi maanaam baadahun na gannaaw li jàll ci gannaaw waxtu yi nga xam ne dama koo tere lu ñëwati ginnaawam rek am ngeen sañ-sañ ci kenn ko ne dugg ci sa morom borom bi nee na tawaafuuna aleykum baadukum ala baad man ngeen di baagante tawaafuuna aleykum kenn ku ne mën nay baagante kenn ku ne mën nay jaabante diggam ak diggam ak moroomam ndax ñenn ñi kat wax dëgg yàlla baadukum ala baad maanaam yéenu nee na mooy baadukum ala baad mooy yéenu nee na maanaam kër gi yéen yéenu nee na su fekkoon ne dañoo bëgg a tere ne bu kenn dugg ci yenn waxtu kon day mujju metti day mujju metti moo tax suñu borom yàlla ne tawaafuuna aleykum baadukum ala baad kadalika noonu yubayinu llahu lakum al ayat yàllaa ngi leen di leeral aayaat yi man nag mënumaa jàpp mukk yàlla ne dama leen di leeral ay laaya ba noppi ñu taxaw ne bu kenn leeral aaya yi te yàlla mi nu bind moo ne yubayyinu llaahu lakumul ayaat man maa leen bëgg a leeral laay yi waaye yow mi nga xam ne da ngaa bëggul laay yi leer xanaa daa am loo bëgg ci nit ñi kon ah dama ne xanaa daa am loo bëgg ci nit ñi daa am foo leen bëgg a jaarale te xam ne bu laay yi leeree doo ko fa man lan moo tax nga ne ma bul xool ci rondal gi lan lan lan moo fi nekk lan la lan moo tax ma dugg ci néeg bi bëgg a taal lampe bi yéen ñëpp ngeen di ma yuuxu te lampe bi doo nga laa bëgg a taal da ngeen a suluwut moo tax yuuxu gi ngeen ma yuuxu yuuxu yu métti yooyu da ngeen a suluwut donc su ngeen soloon seeni yére maanaam kenn du ma wax dara su ma ko taalee itam kenn ko ne fekk naa nga sol yére ma nag boo gisee ñi yuuxu ñenn ñi dégg nga ma maanaam dara warulu ko lu mooy dañoo xam ne lii ci boppam bu leeree dana am kenn ku ne xam nooy doxaleeg sa borom subhaanahu wa taala te yow mi nga xam ne ngaa bëgg ci jaami yàlla yi aw yiw itam wax dëgg yàlla loolu sax dalaa war a neex kii leeral nit ñi lu baax kii tax nit ñi gën a def lu baax ca dëgg-dëgg dalaa war a neex wallahi al azim maanaam képp koo xam ne li muy wax day tax nit ñi jub day tax ñu ragal yàlla kooku moom nit ñi dañu waroon lijjanti dégg nga ma maanaam jàppale ko taxawu ko ndax li ngeen di tuddee société bi mën a tegu ci yoon mën a baax kadalika yubayinu llahu lakumul ayat wallahu alim dëgg la yàlla ku xam la xakim yàlla ku xereñ la yàlla ku xam la waaye ku xereñ la xam-xamam bi lii muy digle moo la koy xamal umpale wu dara waaye xereñ gi itam kadalika atteem yi moo la koy xamal suñu borom tekki ne wa ida balaga al atfaalu minkum al xulum bu demee ba gone yi nag léegi doon nañ ay ay mukallaf léegi nag gént nañ nag moom léegi moom ay mukallaf lañ su boobaa fal yastadinu léegi moom nañuy yëglu ci waxtu yëpp. xam nga fee damaa tànnoon ay waxtu léegi moom nañu yëglu ci waxtu yëpp ndega ndegam ay mukallaf lañ kama stadana alladina min qablihim nu mel ne ña leen jiitu woon nañ daan yëgloo yaa ayuha alladina amanu laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xatta tastanisu ñi waxoon ci ginnaaw xoolal kama stadana alladina min qablihim yàlla li muy ak koo xam waxut min baadihim de mel ne da ko wax ci kanam ca gannaaw la ko wax mi ngi mel ne wa ala alladina haadu xaramna maa qasasna alayka min qablu ñi nga xam ne ay yahud lañ li ma araamal ci ñoom mooy laa la nett li woon min qablu njëkk maanaa xamul mu doon wa ala alladina haadu xaramna kulla di zuhur wa min albaqari walganami xaramna alayhim shuxumahuma illa ma xamala zuhuruhuma aw alxawaaya aw ma xtalata bi azm dalika jazaynahum bi baxyihim wa inna la saadiqun sortu sortu fan lana am la ko nettali woon ñëw ba surtout nax li mu naan laa la waxoon ak xam li muy wax moo tax alxuraan ak mën a wet lib jaam waaw da ngay xam ne kii di wax maanaa maanaa nekkul koy waxantu de la ilaa yàlla miy wax xam nga li gën a neex ci wax yàlla mooy day wax ci kaw di wax ci biir day wax ci sa biir xol yow di wax loo xam ne yow sa jëm bopp yow wóoru wóoru yàlla nii nga mel kooku nag moo la bind kadalika yubayinu llahu lakum ayaati ñëwaat na yàllaa ngi leen di leeral ay aayaam wallahu alim yàlla ko xam la waaye xakimun yàlla ko xereñ la wal qawaidu ñi nga xam ne dañoo saatlu xam ngeen saatloo wolof déggatuñ ko saatlu jigéen ji daa saatlu ak jigéen ji daa caatlu bokkut saatloog caatlu bokkut ngi nekkee dama jàngal weneen làkk dégg nga ma naan waaw gis nga boo ko da ngay teqalee diggante kii distingue ngeen di wax ah distinction waaw di teqale teqale làkku jàmbur te sa làkk ba mënoo koo teqale baax na nag maanaam waaye nag xam na nga xam sa làkk ba nag maanaam jigéen bu fekkoon ne góor da koo yor yàlla sa borom dogal doom jëm mujj am ca góor googa mën naa wax ne kii laa fi caatloo ci kër gi kii laa fi caatloo ci kër gi ndax mën naa am mu amaat doom mooy jamono jii moom kii laa fi kii mooy saam caat ngay wax waaye bu jigéen ji demee ba nga xam ne mënatut am doom daa saatlu ah dafa saatlu kenn wax daa caatlu kii mooy saam caat te fekk mën naa am ba léegi yaa ngi mën a am doom déedéet bu ne kii mooy saam caat ah xanaa mooy saam caat ca góor yee ma yoroon te yorutuma kii laa fa saat kii fa kii laa fa caatloo ngay wax kii laa fa caatloo moor ma ma yoroon kii laa fa caatloo ngay wax dégg nga boo demee nag ba nga xam ne yow su jëpp bopp maanaam mënatoo am doom kon dangaa lan dangaa saatlu wal qawaayidu jigéen ñi nga xam ne dañoo saatlu allaati min an nisa wal qawaayidu way saatlu ya mina nisaa yi ci jigéen ñi allaati ñi nga xam ne laa yarjuuna nikaaxa yéen waa naxu waaw laa yarjuuna gii moom muy wax ay jigéen naan laa yarjuuna te bu doon wax ay góor laa yarjuuna lay wax ni ngeen ma ko teqaleel dégg nga yarjuuna ak yarjuuna yarjuuna ay jigéen yarjuuna ay góor ngeen jëm koo lijjanti ba xam lan moo waral loolu ba tey laa yarjuuna nikaaxa jigéen ñi nga xam ne moom amatuñ yaakaar ci dem sa yi ñooñu borom bi nee na fa laysa alayhinna junaax amuñu benn bakkaar an yadaana thiyaabahunna gayra mutabarrijaatin bi zina bi maanaa jalaabi bi yi nga xam ne dañ daan solo ba noppi daal koy toog teg ci seen kaw mën nañoo jël jalaabi bi yooyu teg ko nee dégg nga xam nga bu njëkk jigéen ñi dañuy sol yéere ñu war a sol ba noppi jël ab jël baab teg ko ci kaw yudnina alayhinna min jalaabibihinna léegi nag gannaaw ñoom saatlu nañ te kenn amatul ci ñoom yaa xemmemteef ci wàllu sëyeeg yu mel noonu ñooñu yére yooyu noonu mën nañ ko jël teg ne bu fekkee ne ñi nekkal ci kër gi seen i maxaarim dong lañ bu fekkee itam ñi fi nekkal ay xoraba lañ maanaam xamuñu leen maanaam ci gàttal daal mooy yenn maire yi daal dégg nga yéen yi nga ñi ngeen ñi ngeen tudde ay maire yéen dégg nga ñooñu bu leen neexee ñoom mën nañoo wayaflu nga xam ne jalaa bi biñ daan teg ci seen kaw léegi mën nañ ko jël teg ne waaye nag xayra mutabarrijaat bi zina ànd ak li muy doon doonu meer ñu may ko maanaa yére ya nga xam ne da ko daan xaw a suutura la woo di ko yokk suutura mu teg ko nële bu mu nag yem bàyyi ca ca ca yaram wa bu mu doon yoo xam ne yu yu yu am taar la ndax itam ku lu ku lu saaqatatin la li ku li saaqatatin laaxita maanaam maanaam lu rot lu nekk am na koo xam ne maanaam méngoon loolee rot méngoo naa ak moom fi ne mën naa am góor goo xam ne si maanaam kooku meer boobu ni mu def problème la ko indil dégg nga waaw moo tax morom mi nag xayra mu tabari alxuraan xayra mu tabari yaatal bi sina subhanallah te sax yàlla neen sax wa an yastafif na ñu far fegu sax benn yoon far continuer ca noona rek xayrun lahun na sax far léegi nag kaay leen ngeen atte ko suñ réew mi suñ jigéen ñi ndegam ay maire la yàlla wax ci ñoom lii waaye noonu noo ngi noonu rek nun moom noo ngi noonu rek ñu waxee ñuy wax jëm kanam jëm kanam foo koy defee tabaate wan ginnaaw yàlla fooy jëme kanam te atte yàlla yi nga teg ko ci ginnaaw lu dafa mën a nekk dañu ndax suñu bopp yàlla topp ko mooy tax a jëm kanam borom bi ne wallaahu samii yàlla ko dégg la waaye alimun yàlla ko xam la laysa alal ama xarajun koo xam ne daa silmaxa amul benn bakkaar ci ñàkk a dem ca jihaad ja wala alal aaraji xarajun koo xam ne daa laggi di soox amul benn bakkaar ci ñuy dem ca xare ba mu ne mu mënta dem ndax mënta daw te it mënta dëgg tànk yu dëgër wuuteeg amru mnul jamoox amru mnul jamoox dañuy dem Uhud doom yi ne ko bàyyi mënoo dem ndax da ngay da ngay da ngaa làggi mu ne leen saa làggi gi ci biir àjjana laa koy dugale laa wax ngeen naaw da nga làggi ah maanaam nii sama ar ji bi mi mi leen di jaaxal ca digg àjjana danaa ko dox naa ko dox ñu ne xaa mu ne kenn mënu ba mu demee ca xare boobu la faatu ba mu demee ca xare boobu la faatu ndaxte moom dëgg la amoon na ngànt waaye mu daa jàpp ne ngàntam lii wax dëgg yàlla ngëmam mayu ko muy toog ci kër gi dafa dem lijjanti ba sa borom yàlla may ko shahaada laysa ala al ama xarajun wala ala al aaraji xaraj wala ala al maridi xaraj moo tax bi nga doom yi bëggee kii bëgg koo boole ji mu gaaw julli ñaar rakkaam ne yàlla sa borom bëgguma ñibbisiwaat far xare boobu ña faatoon ñu leen di tuxal di dañoo ñëw ci am néewam bëgg koo yëkkati kenn mënu ko yëkkati kenn mënta yëkkati néew bi ca lañ fàttaliku ñaanam gam ñaanoon yàlla bu ma delluwaat Madina allahu akbar ñooñu booba dañ jox seen bakkan yi suñu borom yàlla ngir lan ngir ñun ñu mën a dund suñu lislaam dund ju lislaam ju leer moo tax yàlla inna allaha shara minal mu'minina lu ci def anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna wala ala anfusikum wala ala al marid xarajun ki nga xam daa tawat itam amul xaraj wax dëgg yàlla ci teewe julli mbooloo ndegam dangaa tawat amu xaraj ci teewe ko ndegam dangaa tawat amu xaraj ci ñàkk a fekkee jihaad ja déedéet loolu yàlla sa borom dimbale na li ci bu fekkoon ne ko tawat ku nekk da ngay dem bu fekkoon ne kuy sox ku ne da ngay dem bu fekkoon ne ku silmax ko da ngay dem dana metti loolu te yàlla daa bëgg diine ji nekk diine ji woyof woyof yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yuridullahu an yuxafifa ankum wa xuliqa al insanu daifa wala ala anfusikum borom bi subhanahu wa taala itam nee na amu leen dégg nga benn bakkaar ala anfusikum an taakulu min buyutikum bi maanaa yéen seen jëm bopp man ngeen a nekk seen biiri kër di fa jëfandiku di lekk maanaam amu leen benn xaraj ci lekk ci sa biir kërug bopp gi nga xam ne yow yaa ko moom noonu amoo benn xaraj ci dem sa kër baay as-Sa'di nee na min buyutikum ji mooy sa kër doom maanaam sa kër doom nga dem gane ji ko mën nga faa lekk ndax sa doom alalam jooju noonu sa alal la yow ndax yonent yàlla Muhammad nee na alwaladu min kasbi abihi loolu noonu la tekkee wala ala anfusikum jooju an ta'kulu min buyutikum wala aw buyuti abaikum nga dem sa kër baay añ jot nga aña fa wala reer jot nga reere fa te joxewu fa dépasse loolu mën naa nekk aw buyuti ummahatikum wala kër kër goo xam ne sa ndey fa nekk foofa itam amoo benn bakkaar ci jëfandiku fa aw buyuti ixwaanikum wala kër goo xam ne say mbokk fa nekk yu góor da ngeen a bokk ndey ak baay wala ni ngeen a bokk baay wala ngeen a bokk ndey amul benn jafe-jafe añ fekk la fa wala reer fekk la nga nga reere fa aw buyuti axawaatikum wala li ngeen di wooye ay sœur mooy ñi nga xam ne ay jigéen lañ ngeen bokk ndey ak baay wala ngeen bokk baay wala ngeen bokk yaay waxtu añ jot wala waxtu reer jot ngeen bokk ngeen aña ca kër googa loolu amu leen ci benn xaraj aw buyuti amaamikum wala kër yi nga xam ne seen i baay tëx baay tëx ki bokk sa baay ndey ak baay wala mu bokk sa baay baay wala bokk sa baay yaay kooku këram añ fekk la fa wala reer fekk la fa nga reere fa mbaa nga aña fa dara nekku ci aw buyuti amaatikum wala kër sa bàjjan ki bokk sa baay ndey ak baay tey jigéen mbaa mu bokk sa baay ndey ak baay ji baay wala bokk moom yaay tey jigéen kooku itam añ fekk la fa mbaa reer fekk la fa nga aña fa loola dara nekku ci aw buyuti axwaalikum wala seen kër nijaay dégg nga xool yàlla ni mu topp suñu mbokk gi rek dégg nga maanaam kenn ku ne xam la la nga doon ca ka ca des wala seen kër nijaay allah fi ne li mu ne li lu lay war def doon li demee maanaam yàlla wax ñu naan sa tay sa nijaay ak sa baay toog maanaam bala bala nga koo kii sax mooy nga dem ci miraas miraas moom da da dafa koy détaillé waaw da koy détaillé noo xam ne da nga xam ne kii moom moo la bind te moo la xam kër sa nijaay itam noonu mën nga faa añee mën nga faa reere wala aw bu yuti xaalaatikum mooy jigéen ji nga xam ne daa bokk ak sa yaay tey jigéen dégg nga ki bokk ak sa yaay tey tey jigéen moo xam daa bokk ko sa yaay yaay wala yaay ak baay la bokk wala ñu bokk baay kese ñoo ci bokk àtte aw maa malaktum mafaatihahu wala maanaam kër goo xam ne yéen dañu leen a jox caabi yi nga xam ne maanaam yow daal da ngaa nekk ci kër gi ñu jox la caabi magasin bi nga xam ne yaa fay dugg léeg-léeg dégg nga di di ubbi noonu aw maa malaktum mafaatihahu wala sax aw sa diix ko wala kër goo xam ne sa sa sa xarit dafa nekk foofu itam mën nga faa aña mën nga faa reere suñu borom yàlla tekki lan. laysa aleykum junaax an taakulu jamian aw astaata amu leen benn bàkkaar ngeen mais ngeen añ fekk da ngeen a sukkandoo maanaam def mbooloo tiim benn bool loolu noonu mën naa nekk aw astaatan wala kenn ko ne yor su boolu bopp dégg nga kenn ànd ngaa tubaab tubaab loolu dug tubaab tubaab ñàkk xam dong la waaw xoolal kii di tubaab tubaab la di déedéet kii di lislaam lislaam la nga naa wala dégg nga ñàkk xam lislaam ñàkk xam lislaam fi ne mooy tax léeg-léeg boo civilisé yenn yi wala yenn yi sax ñu naan la kii dafa tubaab yi tubaab bi fekk l'islam te mat bu yàgg yàgg wallahi foofu sax duma fi duma fi duma fi yàggal waaw laysa aleykum junaaxun an taakulu jamian aw astaata daa amoon ci aada ñoo xam ne ñoom daawuñu lekk ñoom dong mu fasaru ne ñu amoon na ñoo xam ne seen aada mooy ñoom duñu lekk ñoom ñoom dong faaw dañuy lekkandoo suñu borom ne ñaar yëpp nag ñu njëriñ baax na ku mën a lekk yow dong baax na ku mën a lekk mbooloo baax na bu dee mbooloo ma nag wax dëgg yàlla def ga itam day am leneen loo cay dabu dégg nga mooy bokk ak mbooloo mi loolu moom salaa dana kaana kaana kaana laa yakulu illa ala dofaf moom daaw mbokk daw lekk moom daw moom salaa dana daw lekk moom daw faaw saa buy lekk day ànd ak ñeen moom loolu tam moom mooy gën ndax baraka bi moo tax waaye bu fekkoon da ngaa beru itam ngir ne daa am lu mënta ñàkk da ngaa tawat wala yu mel bëgg bokk doomu aadama yi di leen wàll ah wax dëgg yàlla nga nga lekk yow dong loolu dara nekku ci mi ngo borom bi ne fa ida daxaltum buyuta su ngeen duggatee ci ay kër fa sallimu ala anfusikum na ngeen nuyu seen bopp nit nu muy nuyoo boppam waaw ña nga fa fekk say bokk lañ alxuraan daa jàppe ne ñëpp benn lañ jullit ñëpp benn lañ allahu akbar maanaa maanaa maanaa yàlla ci lislaam daa jàpp ne ñëpp benn lañ même yonent yàlla Muhammad noonu la jàngalee maanaam bu bu ñu wut yenn fawaarix yu nuy teqale suñu diggante ñun ñi nga xam ne ay julli lañ bu ñu wut daara daara lu nuy teqale daara warunoo teqale te fekk nun ci lislaam la nu nekk fa sallimu ala anfusikum bu kenn wut baaraas buy dox sa digganteeg su mbokkum jullit bu kenn wut baaraas buy dox sa digganteeg su mbokkum jullit déedéet lu tax ndax yéen ñaar yëpp ay jullit ngeen borom bi da leen jàppe benn fa sallimu ala anfusikum nu ngeen di nuyoonte su boobaa xanaa taxiya min indillah nuyoo bi nga xam ne fa yàlla la bàyyi ko du ay bonjour yooyu de ay bonjour ak yooyu noonu noonu ngeen di wax bonjour ak bonsoir bonjour ah man léegi ma ngeen bonjour waaye sëñ bi moo na nga def ñooyam de na nga def jooju ba tey benn la rek na nga def jaadi jàll ni nuyoo ba léegi waaw Jóob Jóob dégg nga Njaay ba tey nuyoo ko waaw taxiya min indillah la ñu wax asalaamualeykum moo tax sëñ bi gis nga ndeysaan ñu ngoog taxiya min indillah mubaaraka nuyoo bu barkee la ngi nii tayiba nuyoo bu tey xoola yàlla nuyoo bi ni mu ko melalee ne nuyoo bi dafa bari barke nuyoo bi dafa teey moo tax saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo fonkoon suñu masaan a ànd ñoom ak garab bu fekkee ne dañoo ak garab da leen a teqale comme nu ànd ba ba agsi ci fii nga war a jaar fee ma war a jaar fee suñ tasewaatee fii dañuy nuyoowaat saxaaba yi ku masaan a ñëw ci ak kër booy ñibbi booy dem da nga naan asalaamaaleykum nga xam ne booy ñëw da ngay nuyoo booy dem da ngay nuyoo tey jii nag ku ñëw nuyoo kuy dem nuyoowaat léegi ñu ne waa kii gan gi fu mu juy waaw ndaxte xamuñu tool xamuñu loolu waaw léegi xool leen li muy wax rek asalaamaaleykum yàlla na yàlla def li ci yéen jàmm loolu koy man nañ ma koy wax waxtu ne waxtu wu nekk soxla naa ko salaatu salaam daa mas a ñëw ci kenn kër saxaaba yi taxaw ci buntu bi naan asalaamaaleykum saxaaba yi dégg na ko de waaye wuyu asalaamaaleykum dégg na ko waaye wuyu de ba mu demee bay dem na ko soog a def ne ko déggoon naa la waaye asalaamaaleykum dama ko soxla yàlla nangu ko moo tax say sa salaamaaleykum laa soxla daal ak est-ce que kooku de muus na moom tam waaw. kadalika yubayinu llahu lakum al ayat sunu borom a ngi leen di ay xool li ko xel yàlla li wax li baam na ko ñetti yoon yàlla ngi leer li ngi leen di leeral aay yi ndax aay yi maanaam li suñu atte yi li ngeen di dundee ci aay yi la nekk su ngeen ko xamul ni ngeen di dundee laallakum taaqiluuna ndaxte lee ngeen xellu borom bi tekki ne innama al muminuuna alladina amanu billahi wa rasulih sama diggante julli lu fi dox lu fi dox xoolal ma ko baax ah kon baax na borom bi nee na ñi gëm yàlla ñi nga xam ne amanu billahi wa rasulihi dëgg-dëgg ñi gëm yàllaa ngi nii wala ñenn ci ñi gëm yàllaa ngi nii mooy ñi nga xam ne dégg nga ma wa ida kaanu maahu bu ñu nekkee ànd ak moom kan sallallahu alayhi wa sallam ala amrin jaami ci mbir moo xam ne da leen a boole dañoo nekk di waxtaane lu jëm ci xare yi wala ñuy waxtaane loo xam ne ci intérêt jullit ñépp la aju nga xam ne Muhammad toogut di wax ci mbirum boppam waaye mbir la mu leen boole ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñoom ñi fi toog ñëpp kenn kon def laa concerné kenn ko def laa soxal wa ida kaanu maahu ala amrin jaami lam yadhabu loolu mooy nizaam dëgg mooy kenn du dem kana koo xam ne dangaa teew ci jataay boo xam ne lañ fay waxtaane daf laa soxal yow man dafa aju ci sa lislaam dafa aju sax ci sa mbir moo xam ne si maanaam même bu dul àllaaxira te mbirum àddina la waaye loolu soxal na la te fekk maanaam waxtaan am na ku ko jiite li jaadu mooy nga bañ a dem lu may da ngaa yëglu nga nga ñëw ba tolloog moom nga ne ko ah nga baal ma de wax dëgg yàlla day damaa ñëwoon ngir fekk sa waxtaan yépp waaye nag damaa am ngànt lu ma gàllankoor dañ maa woo léegi bu ko defee moom buy dem dana nga xam kii lan moo tax mu dem lam yahdabu du ñu dem hatta yasta'dinu lu may dañoo yëglu koo xam ne daa toog ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk muhammad yi nga waxtaane loo xam ne julli ñëpp la soxal wala mu ànd ak moom ci julli mbooloo ala amrin jaami mbir moo xam ñëpp la boole lam yadhabu xatta yastadinu borom bi nee na inna alladina yastadinunaka ñi nga xam ne boo nekkatee ci lu soxal mbooloo mépp buñ bëggee dem dañuy yëglu ñooñu ulaika alladina yuminuuna billahi wa rasulih ñooñ ñoo gëm yàlla waaye ñoo gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa ida stadanuuka li baadi shanihim suñu la yëglootee ne dañoo bëgg a doxi lenn ci seeni biir fadan liman chita minhum xoolal ku la neex ci ñoom nga bàyyi ko ku la neexul nga ne ko toogal ndax am na ci koo xam ne maanaam wax dëgg yàlla am na luñ ko soxlaa waaye nag fii lañ ko gën a soxlaa loola yow yaa koy xam en tant que njiit koo xam ne da ngaa jiite mbooloo am na ca koo xam ne bu bëggee dem da nga xam ne kii bu demee mbooloo mi lu bëree bëri dara yàqu kooku mën nga ko jox ngànt fadan liman chita minhum suñu borom teg ko teg ci lan wastaghfir lahumullah te nga leen te nga jéggalu leen suñu borom subhanahu wa taala inna allaha ghafurur rahim xam naa njéggalam gi de moom xam naa ne moom itam xoolal na nga leen jéggalu yàlla ndaxte man day jéggale xool waxe waxe waxe waxe no na nga leen di jéggalu yàlla ndax man damay jéggale waaw maanaam wastaghfir lahum lahumullah na nga leen jéggalu suñu borom subhanahu wa taala ndax inna allaha ghafurur rahim suñu borom yàlla ab jéggalekat la waaye ak ku bari yërmaande la moo tax njéggalam googi ak yërmaandeem jooju yàlla bu nu ko xaj yàlla na nu yàlla sa borom jéggal te yërëm nu yàlla na yàlla sa borom jéggal te yërëm nu loolu mooy li ëpp solo ci lu ëpp jullit di ñaan li ngeen di ñaan li ci gën a rëy mooy njéggalu yàlla ak yërmande yàlla yàlla na ko sa borom yàlla defal suñu borom subhanahu wa taala tekki na laa tajcalu duaa ar rasuli baynakum ka duaai baadikum baada bu leen jàppee ni ngeen di wootee yonente bi ni ngeen di wooyee yonente bi ngeen bëgg koo jàppe ni ngeen di wooyantee seen biir daawda Cheikh Diop bu leen wooyee noonu muhammad muhammad déedéet déedéet yaa rasulallah yaa nabiyallah loolu lañ leen sant ci moom sallallahu alayhi wa sallam waaye ni ngeen di wootante ci seen biir nga xam ne ñàkk wane ne sa moroom la moo tax nga di ko wooyee daawuda sa moroom la moo tax nga di ko wooyee Cheikh Diop déedéet bu leen woowante noonu bu leen ko wooyee noonu dégg nga bu leen ko wooyee ni ngeen di wooxante ci seen biir ndax dafa am worma ju mu am xoolal yàlla yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi mu ko teg dafa kawe kawe kawe kawe ba yéeme sëriñ bi sëñ bi koo xam ne nee na maanaam yëkkati sa kàddu dong mu kawe kàddoom sa jëf yépp mën na cee sippeeku li nga doon def ci lu baax lépp lépp mën naa yàqu koo xam ne ab jaam la ne yow waaye nag ab yonent la te xejjub yàlla la ngay wax sa kàddu féete ko kaw sa jëf rek nga doon jëfal yàqu xor benn yoon kon war ma ju rëy rëy rëy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ko am moo tax boo doon julli boo doon julli naafi la yonent yàlla muhammad bu la wooyee da ngay def naafi la yonent yàlla muhammad doon na woo kenn ci saxaaba yi mu noppi ne ko damaa nekkoon ci naafi la moo tax mu ne ko xanaa xanaa jàngoo yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxikum xanaa jàngoo loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu gën a yey ci sunu bopp noonu annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim maanaam sa jëmmu ji nii lim lay jege jege ak li sa jëmmu ji yey yey ci yow yonent bi maanaa moo leen gën a yey ci seen bopp annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim fii am naa fi ab qissa waaye fi jataay bi doobu jataay moo tax waaw annabiyu awlaa bil muminina am naa fi ab qissa boo xam ne si wóor na ma ne qissa la waaye jataay bi doobu jataay mu jeex laa tajaxlu duaa ar rasuli baynakum ka duaa baadikum baada borom bi nee na ñi nga xam ne ci yéen dañuy toog ba yàgg ñuy yolleeku naa fexe ko daan def dañuy am jataay boo xam ne ñëpp la soxal waaye moom dañ caa duggaale riirandoo waaye jataay bi ñuuru leen mooy yañ fay wax ñuuru leen daal su ko defee dañuy am xaw a tonk tuuti dem ba yàgg ñu ne waa nan la ñuy def pour génn kenn mooy jekk-jekk rocceeku ña si jaar topp ko suñu borom ne ñooñu ñëpp xam naa leen ñiy rocceeku ñëpp di génn xam naa leen qad yaalamu llah alladina yatasallaluuna minkum liwaada la ilaha illa llah maanaam ñi nga xam ne dañuy rocceeku ci yéen tasallul mooy mooy mooy yor mooy rocceeku ñi koy def ci yéen te fekk liwaadan mooy kenn ko ne day làqu ci moroomam dañuy waxante ne léegi fii nag génn bi xam naa na xaw doy waar boo génnee dañ lay jàpp nag léegi comme man maay fexe ba succe na nga topp ma borom bi ne ñun ñëpp xam naa leen qad yaalamu llahu alladina yatasallaluuna minkum liwaada falyaxdar yàlla neen na moytu fal yaxdar laam gi laamu amru la na moytu bu baax alladina ñi nga xam ne yu xaalifuuna dañuy wuuteeg an amrihi ndigalul salaatu la yonte yàlla muhammad li mu indi ñi nga xam ne dañuy wuuteeg moom nañ moytu bu baax nañ moytu bu baax an tusibahum fitna fitna dal leen fii ci àddina fitna ju réeray dal leen ci wuuteeg ñu wuuteeg muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn léeg-léeg nga jàng dara ba mu wóor leen muhammad nii la daan doxe nii la daan doxe waaye mën naa am yaa ngi daw nit ñi ñu am fu ñu lay dëkkale yaa ngi daw nit ñi ñu am ay baati tuuma yu ñu lay teg te xanaa xamoo ne ki yàlla wàcce woon ci moom tuuma ju nekk topp na ko yaa ayyuha alladi nuzila alayhi dikru lu ju dob innaka la majnun firawna fira inna rasulakum alladi ursila ilaykum la majnun yonente yi lu ne wax dañ leen ko yow nga jëgg ñëw bëgg a topp seen mboor ba noppi ne maanaam du mu du mu dégg dara loolu mënul nekk loolu mënul nekk kenn mënta topp ab yonent rawatina muhammad sallallahu alayhi wasallam ba noppi lam lam doon dégg moom doo ko dégg foo ne danañ la fa dëkkale waaye man fi ngeen may dëkkale dégg nga ma baax na li ma itteel dëgg-dëgg mooy fi ma yàlla dëkkale man looloo ma soxal moo leen war a soxal yéen tam bu leen jàpp dama ko indi sama bopp rek waaye man li ma soxal mooy fan la ma yàlla dëkkale ndax ci waa ajana la ma boole ndax maa ngi topp muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ci sawara la ma boole ndax damaa jógee ak moom foofu loolu dong moomu itteel ci sama dund gi waaye du sàmb mi ma man àddina dama fee ñoo fekk leen fi de Amérique bu ma fa doon dund kenn ci laa dul xam mën naa faa dund ba faatu wala Éthiopie wala dégg nga ma Pakistan yéen ñi duma leen xam damay dund ba faatu laa wax du ma xam kenn ci yéen ma ñëw fekkante yéen fii ngeen bëgg maa gàllankoor naa ma ni nga koy defee ni ma ni ko Muhammad def laa koy defee sallallahu alayhi wasallam man ni ma ni ma ni ma ko xamee ne Muhammad noonu la ko noonu laa koy defee bu doon àddina ñaari fan laa fi am sax baax na ñaari fan laa wax su ma ko fi amoon te fekk Muhammad laay topp rek doy na sëkk sëkk sëkk ndax su ma duggee ci sama bàmmeel lañ may laaj loo wax ci waa ji waa ji la ñuy wax dañuy wax Muhammad malaaka yi kenn duñu wax Muhammad nañu loo wax ci waa ji la ñuy wax ndax waa ji kenn la muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam borom bi nee na fal yaxdar na moytu alladina ñi nga xam ne yu xaalifuuna an amri ñi ngi wuuteeg ndigali Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nga jàng ba mu wóor li sunas Muhammad nii la ko daan defee lii la daan wax nii la ko daan waxee nii la daan jëfee nii la ko daan jëfee ba noppi nag ndeysaan nga ne xam naa ne bu ma defee nii nit ñi bàyyi ma nit ñi dëddu ma dama nit ñëpp dëddu nañ dem seen yoon man yàllaa ma itteel sëñ bi fa firru ilallah xoolal loolu rek xool xool googu doyee de rek saa waay nan nit ñi nit ñi nit ñi ak lan nit ñi lan la te kat yaa ko jàppandoo rek waaye maanaam yëf yi du dara fii ne kenn ko da ngay tëdd bu bu dugg tey nga subi sa yër tëdd nelaw dégg nga gis nga naafile yi ngay naafile ci biir guddi gi yàlla dala koy fay koor yi nga tegee yàlla dala koy fay lépp loo def ci lu baax yàlla yow la koy fay rawat na boo ca dëppoo ak Muhammad te sax du ma ne rawat na waaye boo ca dëppoo ak Muhammad sallallahu alayhi wasallam laay ji nañ ci bàyyi xel bu baax a baax wallahi alladi la ilaha gayruhu maa ngi leen di waatal ci sama borom yàlla ne képp koo xam ne xam nga sunus muhammad sallallahu alayhi wasallam wóor na nii la ko doon doxale nga bàyyi ko ngir doomu aadama yi kefe kefe kefe da nga am fitna kenn tënewu la ci kenn tënewu la ci an tusibahum fitna fitna janak yàlla da ko nakiraal fitna ju ne mën na koo doon yàlla mën na laa fitnaal ci jigéen sax far mën na laa fitnaal ci alal sax far mën na laa fitnaal ci addina sax far benn fitna rek la yàlla wax na ngeen moytu bu baax di wuuteeg muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ngeen moytu bu baax yéen jullit ñi ak man ak man mii di wax yàlla na ma yàlla sama borom dimbalee nu bokk bañ a wuuteeg muhammad sallallahu alayhi wa sallam an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim loola gën a doy waar sax wala mbugal mu metti mu bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala laay ji yàlla nga koy tëj wala saar yu bokk ala ala déclaration la ala istiftaax ya la ko arab di wax mooy da ngay waaj a yëgle dara lu rëy lu am solo lu rëy la yàlla sama borom di yégle mu ne alaa dama ne inna lillahi ma fi samawati wal ard loolu la yégle maanaam yàlla donga moom li ci asamaan yépp yàlla donga moom li ci suuf yépp kenn moomu fi dara démb damaa toog ba yàgg jenn laay nekk sama xel bi muy alaa lahul xalqu wal amru laa ilaha illa allah jooju laaye maanaam alaa lahul xalqu wal amru moom mooy maanaam kenn amu fi dara ndax àddina bépp ñaar la séddale ko mooy alxalqu wal amru te ñaar yépp maa ko moom alaa lahul xalqu wal amru lu ci topp tabaarakallah rabbul alamin daane ud'u rabbakum tadarruan wa xufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ala inna lillahi ma fi samawati wal ard mu teg ci ne qad ya'lamu ma antum alayhi ah li ngeen nekkee xam naa ko qad ya'lamu ma antum li ñum laay ji moom moom tamit garaaw ci la bokk bari na ay laay yu garaawee ne moom nii waaye moom mii itam dafa doy waar suñu xoolal ma antum alayhi rek lépp lu ngeen nekkee xam naa ko lii doy na sëkk ci yar ab jullit wallahi alladi laa ilaaha gayruhu laay ji doy na sëkk sëkk sëkk sëkk ci yar la lépp loo xam ne nekke nga ko yàlla nee na xam naa loolu qad yaalamu ma antum alayhi ah li ngay xalaat jamono jii may wax suma tafsir bii jamono bi ma koy def li ngay xalaat yàlla xam na ko wa laqad xalaqna al insana wa naalamu ma tuwaswisu bihi xool suñu ko xam ay waswaas maanaam jax-jaxel yi xel mi jaxale ku xam loolu kooku sëñ bi est-ce que ma di wari su ko moytu ah kay wa yuxadirukum allahu nafsa qul in tuxfu ma fi sudurikum aw tubduhu yaalamuhu allah wa yaalamu ma fi samaawaati wal ard maanaa daal xam gi na sunu borom yàlla xam moom doy na waar doy waar goo xam ne sëñ bi te dëgg-dëgg maanaa doy mani su ko mani su koo jégi daal maanaam maanaa maanaam man xaw ma leen de man waaye man sama jëm bopp maanaa xam gi ma xam sama bopp man nga xam damaa xam ne man mii may xaadim njaay ba pare am yu ma xam ci saa bopp yoo xam ne yéen xamu leen ko te du ngeen ko mas a xam insha allahu taala bu ci yàlla def sutura maanaam loola mooy problème bi man da ngay da ngay kersawoo sax da ngay rus sax maanaam yàlla ni mu la mën a bàyyee nii rek ngay dund nii dem ak ñëw nii rek sëñ bi mën naa am sax am ñu yaakaar ci yow loo xam ne fii xeetu mbaax ak yooyu noonu loolu gën a yéeti si mu gën a doyati waar moom maanaam maanaam ñi nga xam ne yaakaar ne yow sëñ bi kii nga ku ku ku baax a baax nga sëñ bi loolu sëñ bi ah ah nañ jàpp ne yàlla mooy ku baax ki rek mu jeex man de loolu moo gënal moo moo gënal man jàpp ne kenn baax rek mu yàlla njëriñ si yëpp da leen a mosal ay mbaax nii rek mbax mbaxum juddulu mbax na ko juddulu moom suñu borom rek ko am maanaam alkaramu zaati yi nga xam ne moom jëmm ji moo ànd ak mu baax nga xam ne man nekkul ne daa am lenn lu mu def lu ko yokk yàlla naka jekk daa baax waaw naka jekk suñu borom daa baax moom mbaaxu cosaan la yor daal boo ko tëjee ne yàlla nekk barki démb nga xam ne am nga fi ñaar fukki at daanaka di soog góorgóorlu fii dégg nga te loolu ngay de góorgóorlu sax kenn xamul ba xam dañ ci mujj foo foo ci mujj xamuñu dara nga ci xamul moo tax nañ nañ njortu rek nañu njortu rek waaw salaatala boo ma saa wax ne man inni la uzakki àlallah ahadan lay wax ah noonu lañ njortu ci moom de njort nañ ci moom ak mbaax de waaw la ñuy njortu ci ci ci ci noonu ak yéen ci lu baax yàlla ko yàlla dëggal waaw li nit di njortu ci yow te muy lu baax yàlla na ko yàlla sa borom dëggal waaye nit dal rek ko xam nit su xamee boppam wallaahi buñ ko bëggee kaw kawal day tiit saxaaba yi dañ daan moytu loolu kenn ci ñoom a ngi nii di dox ba yàgg gis mbooloo nekk ci ginnaawam muy Abdullah ibn Mas'ud mu xool ne leen fu ngeen jëm ñu ne ko ànd ak yow moo nu neex nii xam nga nit ñi dañ def lu mel noonu nga jug di dem rek ñu daal di ànd daal di ànd ak gàngoor ànd ak yow. dem leen sëñ bi kenn ko ne dem yi dox yi téem ngeen damay topp nii mu ne leen di ngeen may fitnaal man mii ngeen di fitnaal ndax damay defe ne man dara laa ngeen topp ma nii rek yent yàlla Muhammad gisu leen saxaaba yi bu ñu daan dox ak moom fu mu daan fu mu fu mu la fu mu daan nekk ci seen ginnaaw Muhammad mos a nekk ci kanam saxaaba yi nekk ci ginnaaw mos koo def ñëpp dañ koy féete fan ci kanam mu nekk seen ginnaaw ba noppi Anas nee na Muhammad mooy ki gënoon a rëy ci noonu waaye bu ñu ko séenee mu ñëw kenn ñëmuut a jug kenn du jug ndax da koy bañ dañ day bàyyi dañ koy bàyyi ba mu agsi maanaam mu nuyu mu nuyoo daal di toog waaye nee na ni ñu ko bëggee tax na kenn kon da koy da koy jege di ko jege ba yàgg ma kenn du amatu foo toog léeg-léeg sax nga toog am ko naa la jugal mu nga ah déedéet alxuraan ne wa ida qiila ida qiila lakum tafassahu fil majalis fafsahu fafsahu yafsahi llaahu lakum nga xam ne faaw yàlla ñëw wax ak ñoom ñu soog ñu soog a kii ah ndax dañ koo bëgg ndeysaan buñ toogee kenn ko da koy bëgg a jege waaye moom ci boppam nag wayefal naa boppam wayef goo xam ne sëñ bi jéggi na day Muhammad day toog ci jotaay sallallahu alayhi wa sallam kaw kaw jóge ci àll ba ñëw na ay na Muhammad ay na Muhammad ndaxte toogut ci kaw dara daa toog nii rek bu ko yàlla xiiree mu génn yoon mbaamam ma dem ah ba mu jógee dégg nga ma ca kaw jëm juróom-ñaari asamaan yëpp dem ba Sidratul Muntaha sëñ bi xëy sëñ bi mel ne koo xam ne demul fenn ah kooku la yàlla yar sëñ bi waaw qad ya'lamu maa antum alayhi borom bi nee na wa yawma yurja'una ilayhi wa yawma yurja'una ilayhi allahu akbar maanaam bis boo xamee ne dañ leen di subhaanallah maanaam bu ñu leen di delloowaat ci yàlla xam nga ko yarji'una de dana yurja'una maanaam bis bi ñu la takkee takk dégg nga teg la ci kaw ak jaat ay subhaanallah subhaanallah la ilaha illallah wa yawma yurja'una ilayhi maanaam bis boo xamee ne maanaam ñu ngi leen ñu ngi leen di delloo ñi ñi jéggal bu baax fa yunabbi'uhum bima amilu subaa nag dana xibaar leen li ngeen def lépp ci àddina maanaam moom mi nga xam ne dañ leen moo tax kenn ku ci nekk lii ngay lijjanti maanaam keroog ñu ma takke man mbaa ñu takk la yow teg la ci kaw ak jaan mbooloo nekk sa ginnaaw fekk am na xabru buñ gas ba àggal nga xam ne yow yow lañ fa bëgg dugal nga ñëw ñu dugal la fa suul dem suul dem ñibbi kenn ku ne nekk sa programme su boobaa borom bi nee na fa yunabbi'uhum bima amilu maanaam li ngeen doon jëf fii ci àddina lépp laa leen di xibaar waxut fa fa yuxbiruhum de baatu nabba la jëfandikoo mooy maanaam xibaar bu rëy la ñuy jëfandikoo ci nabba mu tëjee lan laay ji wallahu bi kulli shay'in alim la ilaha illa allah maanaam yàlla umpalewu dara te ñàkk umpaleem googu dara moo tax li nga defoon lépp bul jàpp ne dana ci bàyyi dara yàlla nañu yàlla sa borom yokk sutura yàlla nañu yàlla sa borom yokk sutura yàlla nañu yàlla sa borom yokk sutura yàlla nañu yàlla sa borom yokk sutura bu nuy dajeeg yàlla yàlla na fekk yàlla gërëm nu bu nuy dajeeg sunu borom yàlla yàlla na fekk mu gërëm nu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin